dang ma dugal ci lu ci lu am solo Election yi man ñaari nit laa ci gis ño xamni ni tollo niveau ño koy lo ño koy xex le reste des candidats gisuma len lima meuna gis moy njitu rew mi mu ngi fi am na keneen ko mu ngi fi mais njitu rew mi si bopam. Election yi ñaar loxam lako ko téewe mais actuellement téewatu ko ak ñaar loxam ben loxo lako soo téwee dix benn bi rëcc la cinq ay des woowuñu nag waxuñu pour menace waxuñu pour maanaam nit daw taal kat katam ñëw mais dëkk bi dafa may charte dafa may règlement te élection yi day tàng jël day metti commencement bi la nii nii nii rek trois jours lañ am ko xam quatre jours day metti trop ki ko si bëgg a jël di def ay sarax. am ay sarax yum laaj ba ci première dame amna sarax bo xam ne da ko war a sarax bu weex tal la da ko war a su ko génnee ci carton yalla jamm dina sarax nak waxon nako ku ñew suñ la waxee nga def nga gis résultat xaw nak ku ñewul mais ku ñew ñu wax la nga def gis Senegal ñoo bokk nday ñoo bokk bay ben rew la kenn mënu ko xar ñaar mais élection yi dafa laaj ay sarax surtout ñuy topp nit ñi si wàllu politique yi ku si nooy bopp da koy gis nañ naan dof bi waxati na commentaire kat yi bind mais li may wax man ragal ma ko nee naa leen élection yi si boppam dafa laaj ay sarax dafa ay sarax yu ñu war a def ku ko si bëgg a gañe sarax yooyu soo ko defee ci kàttanu yàlla gañe élection yi bu neexee yàlla ak yonent bi ndax la woon woon ni na waaw ah, kay nga gis Macky Sall ak keneen. Mhm. keneen dama gis Macky Sall gis Idrissa Seck ñoom ñaar ñoo gën a baax position li ma ko. ma gis li ma gis laay wax Idi ak Macky laa gis ñoo taxaw. kon ah, man daal li ma gis Idi. ak Macky laa gis ñoo taxaw ñaari ñooñ daal ñaari kuy la yu bokk gétt goo xam ni dina metti trop. pour ki fi nekk moom premier tour mooy avantage am waaw ki fi nekk premier tour mooy avantage am mais dafa am ay sarax sarax yi waxoon naa leen ko ñoom defaguñ ko dañ def sarax yi. bis mais bis bu ko defulee. yalla moy fal nak du Idrissa Ndiaye fal du kenen ay fal suñu borom moy fal su ko neexee boba mu fal ku ko nex parce que suñu borom mo def ba nit ñi ñu wañu ñu jinne wan comprends nga li ñu wan noonu duñu nax te duñu mësa nax élection dafa sarax première dame dafa am sarax bo xamni dafa wara taxaw mom kennel ko bopam du jaar ci loxo nit mom moo koy bopam, barki serigne Fàllu mbake bis bu ko defé rew mi nek ci jàmm hmm? xam nga boba ñu wax kañ gis élection yi manam ñaari far nga taxaw mu na ñu mu ngi melni ñu la mass bi ñaari bi la so ñëkke duggal su waji égalité da ngay dem séeri mu raté ñaari penalty so ko ñëkke duggal soo do dugalat ko deuxième bi moy match bi jeexna ñaar la dañuy def lima len wax mu yam ben tour suñ ko deful ñu dem deuxième tour ku nekk ngi nak di wax ñi naan ñoy fal ñi naan ñoy folli sarax yi ma ci katanal yalla suñ ko deful election yi deuxième tour la jëm man mako wax. wa suñ demee deuxième tour lu ne xaj na ci. No, déggal mané lu né lu né xagn na nee la man faluma fala lewma suñ borom moy fal mom mi ma tek fi mais lima gis ay sarax yu ñu wara def la té ci katanu yalla suñ ko défé ku ko ci def gis njëriñ li. mais Saltigué dañu wax que ne Macky Sall gañe na déjà élection yi ko au premier tour na du yàgg. xam nga xam nga euh, ci wax parce que man ak ñoom am na fu ñu bokkee tuuti parce que séeréer laa la Lege boobu la sama famille papa bokk man siin siin laa ñoom seen gis-gis lañ wax man sama gis-gis laa wax premier tour bi lu mën a nekk la waaye dafa may sarax nit di nga toog fii si biir sama saal bi ma toog di xam la xew na le di gis la le ki nekk si biti du gis li ngay gis yow waaw ah, ñoom gis nañ man gis naa te la ma gis noonu suñ ko deful élection yi deuxième tour lay jëm sarax bi ñu war a def suñ ko deful élection yi deuxième tour lay jëm ci kàttanal yàlla. Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo,